le président de l'association euh, des jeunes de Anne Montagne 5 Mounek Moussa Moussa Diak donc nous euh, am contentement encore une fois euh, di leen dalal di wax bismillah donc nous jox cadeau gi rek président mon ubbi jotaay bi. Mhm. donc di gërëm lépp di gërëm Lamine. Mhm. Euh, ci bi suñu kii bi kii def débat bi. Mhm. promoteur bi. donc ñu ngi koy gërëm di gërëm ñëpp di gërëm aussi ñi ma àndal ñi ñi ma fekk fii. muy mbay Sène muy euh, euh, suñu bàjjenu gox bu Ndeye saw Sow Moussa Diak donc di wax nag am naa si contenté parce que le fait. comme c'est un benn benn émission la boo xam ni. pencum ànd. donc c' est important. parce que mm. boo amee rek man sawar naa pour ñëw fii. incha allah pour wax nekk nag un ci moo tax ma ñëw fii. Mm-hmm. so ah, kii si trop daal. merci président merci président euh, président waaw maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam. Mm-hmm. di rafetlu invitation bi. Mm-hmm. di wax rek ne ñu ngi rafetlu daal émission bi. di ko dañ koy suivre tamit. ñu ngi koy suivre mais ñu ngi koy rafetlu daal. pour l'instant ajaratu Fatou Sow ko mbiɗa hen assalamu aleykum maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu Lamine ah man la Fatou Sow bàjjana gox an montagne 5 b ah di rafetlu émission bi ak mhm. li ma invité fii tey ma bokk ci émission bi incha allah ah, jërëjëf président Moussa waaw asalaamaaleykum euh, euh, Père Lamine maa lay nuyu di nuyu euh, ñi nga xamante ne ñooy seetaan Hann TV di nuyu ñi ma toogal ci plateau bi ku ci mel ni sama père euh, per abu Dieye ak le euh, président des associations des associations de Hann mbay air Mbaye Sène ak moom mi nga xamante ne tamit aussi moo fi représenté pêcheurs yi mën naa ne tâche yi nga xamante ne nekk na ci bari na trop macha allah di nuyu tamit suma maman suma suñu bàjjenu ko aussi euh, de présenter comme euh, euh, association pour l'assistance des élèves primaires je suis le président de AAEP c'est pas AJDH AAEP quoi e AAEP association pour l'assistance des élèves primaires aussi tamit vice président de l'ASC e santé aussi je suis acteur communautaire merci président Moussa Quand ñu première président Abou en tant que président conseil de quartier bu Hann Montagne 5B euh, dañu bëggoon rek nga defal ñu situation euh, conseil de quartier donc loolu parce que euh, bu ñu ma nommé en 2013. Mhm. donc dañu amoon yaakaar si man donc du avons loo xam ni sama choix la les populations ont choisi, mhm. d'être ma président conseil de quartier mhm. donc li ça parce que dafa yu bëri yu passé yoo xam par exemple mhm. donc mais pour le bilan conseil de quartier donc c'est un bilan fiable parce qu'il y a eu des problèmes mhm. mais quels ces problèmes je me suis retrouvé continuer euh, mission ma mhm. donc mission ngi mais président je me suis retrouvé conseil de quartier non non je me suis retrouvé c'est-à-dire xam nga donc problème yi boo gis kuréel boo gis rek. Mm-hmm. mën na am problème mën na bañ problème mais suñu kuréel ñun. Mm-hmm. pour dire diir vrai. Mm-hmm. am na ay problème mais moo tax ma ni quand même quel que soit ces problèmes. donc tâche bi ma joxoon la mooy mission bi ma jox. mission la boo xam je suis la personne morale. kon donc dama ko war a exécuter. quel les problèmes. mais am na ñoo xam ni peut être ils vont se prononcer par rapport ak lan lañ see conseil mais pour man conseil de classe mi ngi dox. ngi parce que le conseil de quartier euh, maintenant il ni démembrement mairie la mhm. donc dafa que le porteur de voix boo xam rattaché au délégué de quartier mhm. donc moi je travaille en étroite collaboration avec le délégué de quartier mhm. avec les populations donc tâche est manquée de koy donc liste si moi peut-être du ma aussi parce que je crois que le conseil de quartier vous dox président bay tax ñu wax membres quels que les membres yu sont d'accord bon d'accord mais pour moi, à mon niveau mi mi dox que tax parce que maa recevoir ay courrier yoo mairie la mm-hmm. maa recevoir ay mm-hmm. mairie dem donc je crois que mm-hmm. conseil de quartier bi mais xëy na mënoon parce que concept conseil de quartier boo xoolee euh, retrouvailles yi la retrouvailles quartier bi association imam délégué de quartier donc loolu concept conseil de quartier concept conseil de quartier président

ndax instant bi amatul réunion. Mhm. ndax bi mu bi yaakaar naa première activité bi ñu ko defee. Mhm. ci la gëj am activité. donc depuis. Euh, 2013 2013 ba léegi. mais fu mu toll nii nekkatul l'essentiel quoi parce que. Mhm. conseil de quartier fi nekk yëpp seen mandat jeex na. yëpp parce que kon conseil de quartier bi. existé tul même bu fekkoon lu valable la sax existé tul. ndax mandat bi jeex na. loolu lépp. jeex na fu mu toll di koy xalaat tëgg defaat assemblée générale. tegaat beneen e- conseil de quartier boo xamante ne nii. mën na nekk ñi fi nekkoon. comme mën na nekk ñeneen. boo xamante ne nii consensus. mën na ko doon. mën na doon lu ne. képp ku nga xamante ne daal askan wi bëgg nañ ñii ñu jiite conseil de quartier bi. ñooñu daal bu leen fi yàlla tegee. xëy na ñooñu mën nañ am. projet yoo xamante ne xëy na continuité lay doon mhm. ñu yeggale ko daal mais def boobu ba tey pour mooy conseil de quartier ba bu ñu ko démarré daal boobu la taxaw. ci gàttal daal conseil de quartier bi existé wul quoi. mairie nag mairie nag bu fekkente ne day bind. Uh-huh. mbaa muy joxe. Uh-huh. mbaa muy def di ko jëb jubal ci conseil de quartier bi na xam ne demul ci quartier bi. Uh-huh. ñoom ñoom bu fekkente ne ñoom ñu ngi koy def xam nañ loolu. te bu ñu xamee loolu tamit te di ko def tamit def lu leen neex la. mais mairie mais mairie bi euh, mi ngi joxe ay subventions. mairie bi première année joxe na subvention. Mhm. deux cent mille. Mhm. deuxième année joxe na trois cent mille muy mhm. cent mille quartier bi gisuñu ko. ci lañ ko bloqué ñoom. ba daaw quartier bi jotul subvention. ba daaw quartier ren tamit amoo yaakaar ne dina ko jot. dina ko jot fii defuñu assemblée générale. defaraat conseil de quartier bi. voilà. Euh, bàjjen euh, Fatou yow en tant que femme nekk bàjjenu gox nekk communautaire euh, yow ban regard nga am ci conseil de quartier bi ban gis-gis nga ci am. booba tey dafa dafa ñuy tekk daal xëy mhm. na nag li président conseil bi wax mun nañ ko ko nangul mhm. mais jafe-jafe am na yan genre jafe-jafe la ah, ñàkk déggoo mhm. mun na ci nekk ak yooyu daal waaye xam naa ne daal jafe-jafe am na ci wàllu tamit subvention yeeg comme ni mu ko waxee président Mbaye subvention yi ñëw na ñëwaat ñoo gis askan bi gisuñu ko

nee nañu depuis 2013 gars yi réunion wuñu ñu ngi jot ay subventions yeen est-ce que yeen a ngi senti sentir seen en tant que jeune. oui jerejeuf mon père comme nous, ko man damay revenir rek comme ci lu lu li mbay wax ak suma père ak suma bàjjen parce que bo xolé conseil de quartier bien vrai que père Abou djey mom lañ fi mom la ñu mu nekk conseil de quartier. ñu joxone ko mu nekkoon ak ay bureau comme nous, ko Mbaye waxee moom mu gérone organisation man meun naa conseil de quartier bi depuis ba parce que bañ koy taxawal ñom man nekk bokkuma won ci ñuko taxawal voilà mais après bañu bañu dawalé ay quelques moments après ñëw naa rejoindre len parce que ni affaire bi doon doxé parce que da nga doon dem ba ben instant yow da ngay da ngay dem sa da ngay inquiété wu quoi parce que tay da ngay xol ben ñom ñi nga xamantene ñom ñoy bureau bi ñi nga xamantene ñom lañu tégon ci bureau bi tay da ngay dem di laaj comme en tant que jeune en tant que président association en tant que acteur communautaire nga dem di len laaj le problème ci problème yi am ci conseil de quartier da ngay dem membre bureau bi koo xamante ci bureau bi la bok da ngoy laaj sax du la wax parce que de un euh, bureau bi nga xamante ne moom moo fi nekkoon sax ñoom seen biir demeewul noonu parce que dem ñu ne la subvention bi kii moo ko jëli ñoom ñii moo ko jëli ñii dernier boo xoolee dernier bi nga xamante ne moom lañ booleeg à la mairie man ak Mbaye nañ ci ñu ko suñu ko suñu ko arrêté li tax ñu arrêté ko nekkul dañu contre suñu père non non mais c'est que système ñu doon doxee moo nekkul lu moo nekkul lu xel mën a nangu. ñu ñoo dem ba à la mairie ne carrément balaa def dara parce que tey euh, li yàlla di dogal. loolu c'était daaw daawaati mooy première bi je crois daawaati geek waaw parce que problème bi moy tay bu fekkee tamit dañuy woote waat assemblée père Abou nar ko jiite ñun mënuñu si dara loolu yàlla moo xam kiy jiite yàlla moo koy def mais dafa am solo comme ñun si quartier bi lañ dëkk lépp loo xamante ne lu jëmale quartier bi kanam la dañ ci war a béy suñu tànk parce que bu ñu xoolee la population yaraax tamit ndaw ñi dañ ci am tànk te la woon nekkatul instant bii nii waaw voilà li ma wax juste mooy que que il est temps comme li mbay wax comme seen mandat jeex na le président est là comme occasion amna mu ñëw tok ñu fexé Nous nous ñu togué ñu nous ñu assemblée nationale assemblée générale parce que tay assemblée du nek lo xamantene ne jaag mooy ñëw ne da koy far force. mbolo mi ñoy tok bu féké tan nañ ko mu tok bu féké tan ñu ko tamit président euh, président Abou. gaay nañu nous sa gestion. gestion unipersonnelle wax quoi que dafa bëri ñu nous mais yow lan ngay wax pour ta défense. ensuite réunion amul dara amul yow daal yow yaay buur yaay bummi. sawar naa di si wax. waay parce que man defe naa ne ku ma xam ku xam Abou Dieye. Mhm. dégg nga ko. Mhm. man soxla wu ma xaalis subvention. Mhm. mais damay dafa benn damay benn rappel. xam nga moo la beneen conseil de quartier dafa am bureau. dafa am ay commission. ñoom nañuy wax ak kan moo a bind acte programme activité indi ko présenté président de. président conseil a jamais été. président de commission lañu. c'est-à-dire li may foofu mooy président de commission da ngay xam rôle bi ñu la jox. Mhm. lan la. Mhm. lépp lu ñu defandoo bureau booy jël eh, man mii en personne man maa jël initiative pour créer benn activité def mhm. ñu dawal de te te damay wax nag yàlla moo tax mooy parce que yàlla dafa sax penku la jublu. te dama bëgg fii lépp lu ñu fi wax mu leer. xam nga benn problème dafa am moom nee na mandat bi jeex na non day wax lu ko ne parce que jàngu jàngum soriwul. mandat conseil conseil de mu nu jeex tant que dafa ñu assemblée générale. moo wax la ko bu dee xamoo loolu. dama leen xoolaat say textes mhm. tant que defuñu assemblée te assemblée président du conseil quartier moo ko war organiser. mais lu la tey woote assemblée générale. depuis 2013 depuis 2013 woote woo assemblée générale woote woo réunion. bul yàkkamti woote naa sama kër. sa kër mooy siège mooy siège ah, kii bi. amuñu siège sama biir kër sama kër goro goro yi. lu tax yóbboo ko ci lu tax yóbboo ko ci chef ci ci chef de quartier bi. ah nga yóbbu ko ci lieu public. non non mën ko déglu parce que. Mhm. réunion de bureau la woon. Mhm. pour ñu woote. Mhm. woote naa réunion de bureau. sama kër mu fees dell. ñu yàq réunion bi ñu wax ko parce que nee nañu il faut ma def lii il ma def bilan il faut ma def lii ma ne leen. comme que yéen mënu mënu leen def euh, programme d' activité. indi naa programme d' bu ñu def ko. kon donc bay dam bàyyi naa sama programme de naa ko te daale woon daale woon fii si ñëpp ñu ma gis programme d'activité bi nga xam mom mhm. lañu la ñu bëggoon def fii ñoom ñu ñu bañ ko mo tax jusqu'à présent ken mënul taxaw ni ah, kii activité ci mhm. ñoom deuxièmement li gën pire dañu def ay citation directe mhm. dem ay organisation ci quartier bi dima ma traité de voleur té yooyu xamna naa ko je pouvais porter plainte parce que nit ki amoo droit di ko citation directe si affaire de demee noonu. Mhm. Mhm. mais je ne du ma ko def mhm. tant que ma je suis en vie. ma toog déglu leen ba tey amul benn réaction. beneen problème bi may wax mooy nee mandat euh, subvention subvention yi man bii maa njëkk bi bind mairie en 2014 daf benn tey débat fii suñu suñu quartier. pour wax leen.

mais man je crois que ñun bu ñu joxee xaalis xaalis bu ñu séddoo. xaalis pour ay programme d'activité pour quartier bi la. concrètement yan yan programme nga. deuxièmement non allez vite concrètement may may ñu rek nga wax ñu concrètement activité bii nga ci def. non xam nga activité yi bëri na. Mhm. bëri na activité yi. non não, ma ci mais citeel ñu citeel ñu ci rek. benn conseil euh, délégué de quartier bi. Mhm. président du conseil de quartier bi moo ko organisé. Mhm. maa ko organisé financièrement sama alal. benn. non waxuñu sa alal non. yow subvention bi la jox. subvention bi ñu la jox nga wax ñu activité bi nga xam ne def nga ko ci. non moom lay maa ngi ñëw dafa demoon maa ngi ñëw xaaral mhm. dana ko mhm. benn boo xoolee. Mhm. daf nañ si ay activités yoo xam ni benn ASC bi. am na ay am na ay subventions yoo xam dafa nañ leen bu may wax fii peut dama bëggoon président ASC mooy bu am na ku fi nekkoon. je crois que kan la woon am na ku fi naan. non du Xaadim am na ku fi naan. premier kii Yaaya. ñoom yaayaa mhm. ñëw nañ fi am maintes bi boo xam ne ay subvention ma jox leen mhm. deuxièmement am na côté social boo xam daf nañ ko mais bu fekkee ne man damay woote mhm. damay woote ñoom ñu def daf daf dam créer seen affaire dem créer sa ay réunion pour lan ñu dañ gis ci awujee man li ma mën def mooy toog jàpp sama ñaam lu ma ci wax parce que tant que sama mandat jeexul mënu ma wax ñoo xam dañu lay discuter parce que benn merci président président mm. euh, président Abou depuis 2013 indilu leen ko benn programme euh, euh, euh, d' activité boo xam ne war na ko mën def te yow xamatoo ni sax yow yaay président comité d' organisation lan ngay wax ci loolu. waaw ma ne. <laughs> te nee na yéenay wër di ko jéemaane di ko di ko di ko traité de voleur. <laughs> yow yaakaar naa xam nga ma ndax bu dee CRAP ñoo ko bokk. Mhm. bàjjenu gox bi xam ne ma Moussa xam ne ma population bi xëy na bu ñu seetaan ne bu ñu nee activité rek dinañ xam ne mbay mooy activité. Mhm. commune Hann Bel-Air. Mhm. ku dàq def mbay seen activité man gisuma mu fiy dund. non ci conseil de quartier non dama lay expliquer rek. non dama ma wax dama lay expliquer rek. Ah. ne kon ku ko dàq gi def activité. Mhm. amul ñun chaque jour bu ñu xëyee dañuy def activité. Mhm. ci conseil de quartier bi man personnellement dem naa këram ay yooni yoon pour activité mhm. ndax ñun suñu association siège ba foofu la. këram moom waaw. ban gis nga ci activité yooyu ma lay wax. Mhm. conseil de quartier bi ci boppam li ma baax li may wax man dama koy wax te yàlla tax. dëgg la ah vas-y man may nekk nit ka nga xamante ne du ma wax mhm. leneen ngir sama bakkan. Mhm. yàlla moo ñu te kuy wax. ngir yàlla wax sa diggante yàlla. te xam ne dee bi bari na. te gaaw na ku ci nekk xamal ne yow mën nga dee léegi léegi. mais wa waaraate bi jarul. voilà non da di wax di wax rek ne. Uh-huh. conseil de quartier bi. Mhm. ba mu jotee subvention première subvention. Mhm. avant bu koy jot dafa amoon activité. man activité amoon activité ba nga xam ne président man maay man maay laajte. man maay laajte waaw aywa. muy premier journée jouru lancement bi. Mhm. ñu ngi ko defee woon buntu kër euh, buntu kër euh, Pa Amadou Matar Niang fa lañ ko defee woon. defe naa fond bi ñu fa jotoon sax. ci jour boobu. 17500 mhm. yi ba tey musuwaar bi ko Vieux Ngom yeewoon muy trésorier bi. Ah. ma ngi fa ba tey. Vieux Ngom mooy trésorier conseil bi waaw bindoon nañ. Hmm. Hmm. xam naa dina ko seetaan bu soobee hmm. yàlla. parce que bindoon nañ ay ay lettres. yu dul jeex yoo xamante ne bindoon nañ ko pour invitation yu mel noonu. mais ay lettres la woon nii rek. ay waaw ñu ñu kii. première situation jot nañ ko. ñun dañuy dund ci mouvement associatif. dañuy dund fu nekk. yaakaar naa man man man man ma nekkoon président bi man. ñu jox ñu deux cent mille subvention. jox ñu trois cent mille muy subvention même bu dee deux cent mille trois cent muy cinq cent mille man moom ma ko. du ko sax jëli. ndax trésorier bi mu ngi fi. li tax ñu fal ko xam naa am na fu ko denc. ndax man trésorier laa. CRAP maay trésorier bi. kon trésorier bi xam na fu mu koy denc. te tamit bureau am na. boo xam ne am na ñu war a jëli subvention te bu ñëwee. am na ci loxo mais bureau boobu mais bu gaa yi ñëwatul. bu gaa yi ñëwatul tamit mënul mënul toog di xaar jour subvention mu leen dem di wooyi. voilà gaa yi tam bu ñu fonctionné subvention bu jotee waroon dem jëli ko. Ah. bu ñu hmm. toogoon fii nga xam ne fonctionné nañ non conseil de quartier bu ànd montagne 5 moom bee gaa yi kenn santuru ko. depuis moo mais nag waa commune waa koñ bi. non yéen am ngeen ci part de responsabilité dëkkandoo. Mhm. ak muñ ak noppi. Mhm. moo ñu indi fii. Mhm. mais li ñu def nii mën nañ ko de. xam nga nee na la jël micro taxaw ci mbedd mi. di wax ay diw sàcc la ñoom ñun duñ wax ci ban du wax ci ginnaaw nit. def nañ ko fii. Ah. non saa ah, ko mu kii rek waaw. waaw ah. dañuy dañuy dégloonte dañuy dégloonte. mbay man du ma wax si ginnaaw nit. xalaatuma ko sax. du wax ci ginaaw nit mais réunion ngeen ci bor japp je dima traité de voleur réunion ngeen mais nañu wax deug bu lawé fé man ci lay accepter ah, ah, deug lu wax la li wax la li def amu ben problème xam nga dafa né woté na réunion bi ah, kërëm biir kër gorom ma mhm. nga ci réunion ba mhm. defé na yang fa won mhm. ak ñeneen ñeneen ñeneen bari won na fa def na kaaw sax mu nga fa won parce que conseil de quartier mën ta jot 500000 subvention nga yar ko genné ay foy fi la ko dugal fi la ko dugal yow moomuloo ko mhm. nit ki la mu moomul warul foo ko sàq fu ngay dugal mhm. mais yeen bu ngeen deful programme mom dina def programme en tant que président yéen wara def programme nak yéen ba programme ba yaakaar ne bureau mo def bureau bu dul wote nga ngay programme askan wi mais si le si le président président ko imam li ko imam ba ci gi gën a nekk na pour conseil de quartier pour conseil de quartier woote réunion mu bañ wote réunion mu bañ askan wi jënd ci ndad bi nak wote sen bop merci merci Adja Fatou yow en tant que en tant que badjenu gox ah gis nga ni tey jii conseil de quartier bi vraiment mi ngi non dal nax saay na pratiquement yéen lan ngeen ci lan lan ngeen ci wax kon duma ma la laaj sax xam mi ngi leen di jappalé yéen en tant que bàjjenu badjenu gox parce que xam naa ne jàppalewu leen. Euh, loolu jappalé moom amul euh, wax dëgg neex hmm waye dal man ma sañon en tant que bàjjenu gox. Mhm. conseil de quartier dal dox ñu.

commission santé yi. commission santé. Euh, kenn ku si nekk war nga mën a jóg béy ci sa wàll. Mhm. wax président bi. Mhm. ngi nii toog wax naa ko ay yoon da ngay woote réunion ñëpp ñëw bu ñu wootee réunion ñu toog ñu waxtaan. mais moom nee na woote na réunion gars yi toj réunion bi ah ñoom mbay ñoo ko toj. waaw euh, réunion yooyu. waaw euh, ah, mbay ak Moussa quoi réunion ah. yàlla dafa dogal man. waaw ah. fekkuma fekk woon fii. Uh-huh. après bi ma ñëwee laa ko yëg dafa yàlla dafa dogal jour boobu réunion bi muy am fekk ma fi. Mhm. Euh, wax na ma ko. si mhm. gannaaw ci loolu nee naa ko na woote réunion. mu mhm. nii euh, du ma bàyyi ma fen ndax ñu defaraat toogaay yi. vraiment conseil de quartier bi mën a dox comme ni yeneen conseil de quartier bi doxee. wax naa ko. waxaat ko ko. Ah, ñoom ñi yëpp tamit am nañ ci wax dëgg neex yàlla. part de responsabilité waaw. waaw merci Adjaratou balaa muy jàll moo ko teg mbay jërul paral sax may teg uh-huh. réunion damaa toog man jëru ba sax paral doo mm-hmm. non mais mais mais yéen instrumentalisé booy yaa ñu non du ay booy ay magum jëma fan ay paa amul xale de amul sax ku commencé man ak kii ñoo fa gën a nekk xale fi ay man ak kii a nekk xale waaw man ak kii ñoo fa gën a nekk xale mm-hmm. ay paa ñoo fa toog c'est bon c'est bon c'est président Moussa président Moussa yéen ay jeunes ngeen yeneen conseil de quartier yi ay jeunes ñoom ñoo koy doxal ñooy locomotive bi mag ñi peut-être ñi ngi ci ginnaaw di orienter yéen donc yéen gars yi sentiruñu seen seen seen seen seen seen seen taxawaay ci ci affaire ba moom moo tax bi sooxe parce que président nee na gisul kenn. xam nga xam nga dafa am loo xamante ne gis nga li mbay di wax sànq dafa am solo kenn kenn ku nekk buy wax da nga war a xalaat ne après da fiy jóge quoi te lu amul seede. bu jarul sax ñu si sori pour man bàjjan wax na ko léegi yàgg na ko woo pour ñu woote réunion ñun ñëwuñu fi naan ko père di ko li mu yor maanaam yëre bi mu yor en tant que père Abou Dieye ñun suñu papa la dañ koy jox cër parce que quoi qu'on puisse dire amna lo xamantene ñun Sénégal ñun loolu lañu xam kilifa da koy jox delloo cër bi mu mom mais mbubu bi nga xamantene mom la sol nim ko solé mo baxul manam bu amé bouton na japp né bouton bi dag na ah tay pour pour pour wax ji leer ñi nga xamantene moy membre bureau bi ba may ñëw léegi toog naa benn koo xamante ne moo charge pour ñom ñom ñoom si ñoom lañ doon dem wax ak ñom na carrément yeen yéene suñu kilifa dem leen ngeen woote seen biir ngeen woote réunion ñoom seen biir ñoom ñooñ sax ñoom bureau bi jubóowuñu bu ñu dem ba ba subvention yi ñuy wax ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo waroon ànd ak moom wala yë waroon yëg naka la koy jëlee ak naka lay doxee ñooñ koo si dem danaan xaw ma nu mu demee ay ñoo xamante ne sax si bureau bi lañ naan ñoo ko jëli dem nañ à ñun pour ñun lépp lu ñuy def ñun bu gis nga li def ni mën nañ ko de taal yàq xeex ak ñu ko amoon ba ñu bëri fii xam ne xamee nañ ñu ko mais àdduna doxewul noonu bu doon noonu lay doxee ñun du ñu judd mais lépp loo gis xel la ak yar ak teggin mais dañ ko bëgg xamal ne ko moom pour wax ji mu leer parce que tey ji balaa mënoon neex tey ñu tegoon ko ci digg mbedd mi parce que mbedd boobu noonu ñu doon toog di woote nit ñi ñi di ko woo naan ko dañ ko doon jëw dem nañ ba man si micro waa waaw waaw ma si laay ñëw dem nañ waa kii père dem nañ ba si jàkk ji micro jàkk ji man maa ko jël na ko ñu ngi woote ñun ñu ndaw ñi ñooy ñaan président conseil de quartier mu ñëw wuyu ñu ngir yàlla ñëw ñu xool ni ñu réglé quartier bi est-ce que comprendre nga. est-ce que def ngeen au ngeen di dem jël micro jàkk ja defoon ngeen délégation dem këram. mbay seen mii rek doy na seede bàjjenu gox rek doy na seede xam nga li ëpp solo mooy dafa am loo xamante ne ñun bu ñun ay ndaw bu ñu toogee di waxtaan su ñu suñu biir di waxtaan ne lii la ñu bëgg ñoom dañuy ko ñoom dañuy bind ay lettres yoo xam dañ koy ñoom seen moom bureau bi lañ koy jox ne ko woo leen seen président mu ñëw ñëppay ñëw moom du ñëw te pourtant jox nañ ko lettre mu ñëw ay nit dañuy sol seen daal dem ba këram woo ko pour mu ñëw si réunion yi non duñ ko toroxal lan non attends du toroxal man parce que yooyu yëpp man maay jël micro bi du toroxal mbooloo mi toog mbooloo ñëw woo ko man jour bi jour bi wax noonu naan day présente affaire liggéey woo nañ ko comme première réunion ba mu woote kër gorom ba mu ñëwee ay dossier la fa teg réunion bi du mag ñun ñoo ko yàq de mag ñi ñoo ko yàq maanaam mag ñi paa yi nga xamante ne ñoo fa nekk ñooy jóg wax moom ba ñun ñooy mujj ñun bu fekkoon yëngal la rek ak xeex duñ fii billahi wallahi duñ yegg ci fii. mais yéen yéen yéen a ngi yéen a ngi fëgg dënn di wax conseil de quartier bi liggéeyul liggéeyul yow sa association boobu noonu concrètement ban activité est-ce que gars yi xam nañ la. association bi may def man. association bi depuis 2013. bu àdd AEP. Ah, ah, seetu woon naa ko. invité woon naa ko mu ñëw mais ñëwul. waaw man xam na si la laay yëngu man man ci la laay yëngu man en tant que président de l'association. man ñenn ñooy say membre tamit yow mbaa du association dóor yooyu noonu comme ni gars comme ni gars yi di def ko benn nit ñëw créer association bi ñëw taxaw. waaw maa ngi ñëw sama association boobu def naa fi ay tournée médiatique def naa fi ay tournée si média yi parce que boo xoolee maa ngi nuyu maa ngi saluer Badara Gueye di nuyu euh, euh, Nouran Diouf di nuyu ki nga xamante ne mooy. Euh, ay ay élèves lañ Badara Gueye c'est un Badara Gueye xam ngeen ko mooy suma secrétaire. Badara Gueye ñu bëri fii xam nañ ko mu ngi euh, moom université la nekk Nouha tamit la même chose maman mu ren lay def bag. est ce que ñooñu ñu ngi ñu ngi yëngatu. ñu ngi yëngatu à la fois passé yàggul boo duggee en TV ñoom mu ngi nii sànq wax na ko nan la ma xamee ay kaye laay doon maye chaque at ñu ñoo koy def jël ay kaye distribuer ko les élèves primaires jox ko les élèves primaires même bu dul dara ñu ne acteur communautaire ñun bu ñu nekkee ci koñ bi tout ce qui est injustice lépp loo xam ay nit dañ fi am ay problème muy social muy lu mu ti doon dañ koy def te yàlla tax te duñ ko wax ñun ñu ngi moom mii xam na si dara moom mii xam na ne ñun ñii ñu ngi xeex ci koñ bi loo xamante ne tey tey boo demee montagne 5 tey bëri na si cadre tefes foo xamante ne da doon tilib mais dañu ñëw suñu propre moyen dugal suñu page Facebook ñun li ñuy def nëbbatuwuñ de ñun tey bu ñu taxoon si mbedd bi yëkkati suñu loxo ne lii la ñu bëgg balaa ñuy wàccee gars yi ñoo ñëw yëkkataat suñu loxo yëkkati. mais président Mbaye Sène euh, yaay président Amal yaa ngi yaa ngi ŋàññi conseil de quartier bi mais yéen gars yi sentir ruñu leen de. xam nga man kuy kuy wax di wax ay activité ci man ay activité associative xam nga kañ laa ci wàcc wàcc mm-hmm. barki barki démb rek laa defoon activité barki démb laa mujjee def activité. Mhm. ñun activité déggalu la. non non non association bi mooy li ma wax kii rek yéen da ngay gars yi dañuy ñëw créer benn association boo xam ne ñaari nit la yow yaa créer sa association ñëw rien que pour pëndal boo ñëwee jël ñaari rato ñett ñëw def def def def benn kii noonu pëndal woo gars yi def image def Facebook dóor pour dóor quoi. voilà <laughs> koy dóor. koy dóor ñu jot sa mhm. lu ñu jot ñoo ko nattal suñu bopp. Mhm. dañu déglu ma dañu am programme quatre cent mille wala cinq cent mille boo xam ne. parce mhm. que alxuraanu karim membre yi ñooy joxe. Mhm. du dërëm benn mbindeef. Mhm. bu ciy dugg. loolu kañ ngeen ko def. chaque waaye chaque semaine wala chaque weer nga naan ma kañ. ñun dañu nekk association bi dafar at. ñun buy par semaine lañ bokk ci association yu bari yo bu ci nekk mënu toog une semaine te activité boo xamante ne li mu ciy dépensé. mënu ma ko sax taxaw fii di expliquer. du carte bi carte bi dafa gàtt sax pour témoigner ñu. commune bu Hann Bel-Air bu ñu seetaanee mbay seen muy wax. sama portable a ngi nii bu ma ko taalee nga doyal sëkk. na ko ba ku ñu def activité sax booba ci wowul du am. doo mhm. sox bu moo xam. ci jàmm la yéen dafa mel ni yéen kon may doole seen seen association yi ah, pour pour pour. que conseil de quartier bi ngeen seetaan conseil de quartier bi quoi. conseil de quartier bi bu ñu sañoon mu dox. Mhm. xam nga mu ngi expliqué sànq naan dañu taxaw woote ci biti jeebaane déedéet. Mhm. gis nga woote boobu na la demee. Mhm. ñaari quartier yi dafa nekkoon en montagne 5A ak B. waa A convoqué nañ ma ma ñëw defe naa woo naa la. ba nga bindoon ay convocation ñu ne pour pourtant benn ay la ñu bokk. lan moo tax ñu am benn conseil de quartier man leen loolu rafet la mhm. dinaa woo jàkk ñu dox ci loolu dinañ ci ñëw ci kanam tamit ah dinaa woo jàkk ñu dox ci mhm. suñ ci doxee ñu fédéré ñëpp mhm. ñu def ko benn conseil de quartier tax problème mu ki nekk président bi tey defe naa Saliou la mu ne man ay njiit yooyu yëpp intéressé wu ma nañ fexe rek nekk benn rek jàkk bind na dem bind na convocation yi ñu dem ci chef de quartier yi fépp ñaari chef de quartier yi waxtaan ak paa bi Sarr waxtaan ak beneen paa bi dem ci imam Koli wax ko ko. dem ci beneen imam bi expliqué ko. dem ci conseil municipal yi fi nekk. wax leen ko. dem ci paa yi nga xam ne ñoo saa yi nekk ci quartier bépp wax leen ko ñu ne am problème bu ñu paree dañ jël convocation yi kii. paa yi première woo bi ñu ko woolu moom. loolu lañ ko doon expliqué. pour naka la ñuy def ba waxtaan. nga woote. ñëpp dajaloo ñu toog. ñu waxtaan naka la ñuy def. ba conseil de quartier yi. ñu nekk ci denn bi ñu ko foofu amagul. bi ñu ko waxee ñëwul. paa yi woote waat ñëwul mm-hmm. paa bi nga xam ne moo nekkoon saas ba dem fa demati fa dem fa ñëwul mm-hmm. trésorier bi ñëw expliqué dem fa dem ku ne dem ñëwul mm-hmm. si la ñu woote assemblée générale extraordinaire du nekk lu nekk ci biir kër nekkul lu nekk ci ruq kon dañ naan ñii xëy li ñu def yii mais quartier bi moo ko def da ko teg ci digg jàkka ji imaam ko li ñëw su leen su leen arrangé quartier bi ñëw def assemblée générale extraordinaire destitué ko lu chef de quartier bi ñëw paa bi jiite saas bi ñëw trésorier bi ñëw comme amul ku manqué ci quartier bi jour amul ku manqué yaakaar naa man mosuma fàttale ko ci quartier bi lu dul assemblée générale bu AIC bi fu ma yore micro di wax mosula man lu ma bëgg a wax dina dama koy wax te kii man ak ay doomam ñoo bokk association yu dul jeex ñoo bokk man sax parti politique lépp lu ñuy def ñun ñoo koy nasandoo ñoo koy noccandoo mm-hmm. jàng gi nii mm-hmm. woo leen ko réunion sax dam naan du jóge ci man woo ko réunion du jóge ci man ndax du li ma séq ay doomam mm-hmm. mu ngi nii amul ko ñëwul ci man ma ne ko du ma ko woo may ma foofu kon su taxawee wax ñun ñoom ñooy taxaw président Boudiène on a l'impression que ni yow euh, yow danga nga créer sa bunker ah conseil de quartier bi da nga ko ku la woo doo yow yaay bour yaay bumi hein ba sax amna na leneen sax lu ci parce que euh dafa melni yow tu n'es pas dal tu n'es pas ouvert loolu moo tax beneen conseil de quartier am. léegi euh, nga yi est-ce que woo nañ la wa bañu créer wa wa an montagne 5 a ah. non dafa naamoon la. dafa naamoon la c'est-à-dire nga boo mhm. mu leer. Mhm. man par exemple euh, conseil de quartier boo bay convoqué. da nga may mhm. convocation. mais man kenn du ma convoqué noonu. convocation nga may jox. wax ma la mais convocation jox la jox convocation bëri na yaa nangul wuyu. kii une fois jox nañ ko convocation. une fois lii balaa ma doon neex ñu defoon ko si mbedd mi. gis nga bu ñu si mbedd mi. toog nañ ñu ñoom. billaay man su man imam bu ñëwoon billaahi wallaahi gars yàgg nañ ko jox ay convocation yàgg nañ bëgg këram ci ban structure ban structure pour ndaje pour ndaje conseil de quartier ñun xam nga lan moo indi ah, violence non xam nga lan moo indi violence ñun dañoo dëkk non mais attends mais tamit booy wax loo xamante ne nekkul non attends mais non damay wax li muy dëgg dañ ne dañ ko woo ci sutura may ma may ma président président président président président président bu koy wax ñu duñ ko nangu. président man maa koy gën bañ bañ sax man. yow dañ la woo si sutura woo la si njëkk ak teraanga nga bañ. président calme-toi président président on se calme gars yi may may may ma président ah, ah. may ma may ma may ma may ma euh, gars yi. buñ ko defoon si mbedd mi ngay xam ne billaay wallaay duñu wax. Moussa Moussa Moussa Moussa. Moussa may ma Moussa Moussa ma Moussa Moussa il faut se calmer. yaa ngi njëkk Moussa ngi Moussa, Moussa mën Moussa, Moussa, Moussa, waaw may ma yére bi nga sol nga war a defaraat. may ma may ma may yére bi nga sol nga war a defaraat. Moussa Moussa may ma Moussa Moussa may ma Moussa Moussa Moussa non Moussa yow yaay noppi. suba ñu dem assemblée Moussa Moussa couper sa micro. waaw yaay yaay ma président président président il faut pas t'emporter aussi. gars yi da nekk. non mais kii ma waaw may ma waaw may ma may ma may ma may ma expliqué dañ nekk ci jotaay. Oh. di waxtaan pencoo la waaw. cempo waaw pencoo la voilà donc donc. bu dee euh, yaa koy

présent présent présent da ngeen di déglu da Voilà, di on va. voilà voilà voilà voilà. mais ma présent voilà mais mais je voilà eh, eh, gars

jafe-jafe yi ni am moom wax dëgg neex yàlla ah ñëpp xam nañ ko mooy ñun dañuy doxee suñu propre moyen ndax tey di nga gis koo xam ne. mairie bi mu ngi leen di jàppale ci seen activité. de ñun nag mairie bi moom dinañu jox chaque année subvention. Mm-hmm. waaw à part nag amul amul leneen daal. Mm-hmm. Euh, subvention bi ñaata la. waaw. ci li ma yëgugum daal bu ci nekk deux cent mille. deux par année pour seen activité yi quoi. léegi da ngay gis ku feebar. Mhm. yaakaar la. Mhm. ñëw sol daalam seet si la. Mhm. su ñëwee yow ci sa jëmi bopp da ngay daal di jaaxle. parce que da xam ne kii am na jafe-jafe. soit yow yaay dindi sa pochette nga xool. mais est-ce que loolu moom mooy rôle lu boo bàjjenu gox bi. déedéet loolu dëgg-dëgg du suñu rôle. te ñun ku nekk xam na ne ñun. kenn du ñu fay. est-ce que gisu leen kon. Euh, kenn kon mairie bi war na leen mën a fay comme yéen yéen a ngi jàppal gars yi sur le plan waaw loolu nag. Euh, war nañu mën a dagal salaire doon nañ ci waxtaan. ci mhm. suñu biir. Mhm. xëy na nag demaguñu ci maire. Mhm. pour kii ko waaye nag ah, su amoon it lu jaadu lay doon parce que dañuy liggéey liggéeyu benn baax.

lu mu fayee ticket. mu ñëw xëy na ko yaakaar ci man. da ko yaakaar waaye. Ah, su ko defee bu boobaa ma nit du ma ko mën a bàyyi noonu mu dem. dëgg la xam naa leer na ma ne moom mi ñëw ci man. Mhm. xam naa ko moom xam na ma. Mhm. ki mën a dem ci poste ba tey te yor man su ko gisee dinaa mhm. ah, ma nit ko bàyyi la dëgg la ah, mais président Mbaye yéen lu ngeen wax ci bàjjenu gox yi. waaw comme nee ngeen yeneen activité yeneen jàppale mais bàjjenu gox yi ñëwuñu ci xam nga expliqué nga xam ne moom la ñuy mhm. mais les mêmes jafe mhm. mais yéen yéen nee ngeen yéen dafay activité yoo xam ne da ngeen dépensé cinq cent mille te jàppalewu leen bàjjenu gox yi ñu jàppale ko ci comme nan moom la jàppale wala population population yi ñu ngi ñëw ci moom waaw population yi li bay bëgg mu ne la ni ñuy moom noonu la ñuy ñëwee ci ñun mhm. man ma seetaanee waxuma ci association mhm. mais lu ñu jóge ci man lu ñu yaakaar maire ci man lañ koy jëlee mhm. lu ñu yaakaar lu ñu yaakaar population àndoon nañ cinq lu ñu ci mairie ci lañ koy laaj yéen yéen yéen bàjjenu gox yi est-ce que mës dem ci association yi pour waxtaan ak ñoom ne leen pour ñu jàppale leen ci ci ci seen activité dem nag ci benn ko fa dimbal

kàcce bi comme jafe-jafe yi mu soulevé rek xam nga mhm. tey jii comme euh, expliqué na ko nit ki day dina am problème ko euh, mhm. facture courant mhm. nit ki dina am problème mu feebar war a faju ordonnance am ëpp ko doole pourtant comme bi ñuy dox paa yooyu muy ci conseil de quartier bi paa yi ñuy expliqué. pourtant euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon convoqué réunion ba bépp. Mm-hmm. ay ordonnance bi. Mm-hmm. yenn ket yi gaañu na. moom moo ko jiite woon yenn ñi kaaw tamit bi ko jiite woon gaañu na. yoo xamante ne ay woon ba ci seen ordonnance ñoom ñoo ñu décédé. Mm-hmm. ba ci seen ordonnance quartier bi ñu ci doon liggéey. ak yenen ak yenen amna yo xamne daf daf upp doole. deug la suñu uppé doole nak commission sociale bu mairie. Mhm. yaakar na xam nañ amone mon dañ 5 waaw fofu ngeen yag nañ fa dem. Mhm. di fa joytu ay ndimbal. ñu mhm. ñuy dimbalé moy ñew ci quartier bi. deug la ci ci nak mm -hmm. ci bépp fànn boo xam ne muy social. te bu mu mënta nek ñu ci ñu ci doon liggéey. ci quartier bi ku mu nekkul tay rek nek sa morom suba. sa morom euh, merci président euh, président Moussa yeen en tant que jeune jafé jafé yi.

ba ñuy jox xale yi ay cahier ak tout ça yooyu maire jox presque jox nañu 1000 cahiers may nañu 1000 cahiers aussi tamit euh, suñu euh, conseil de quartier bi euh, père Abou suñu président tamit ba ma ko seetee vraiment japp na ci waaw c'est juste xam rek moom ni ñuy waxee moom nekkul moom la ñuy kii ak yooyu c'est que dañu bëgg affaire yi gën a taaruwaat voilà. voilà non sànq wax naa ko non dama ne si ma ko seetee jàpp na si c'est que il faut gars yi comprendre benn affaire ak aussi tamit le président Baro. baro tamit mi nekk mairie ma moom tamit maa ngi koy saluer au passage parce que moom tamit nekk na nit koo xamante ne dañ koy wax parce que fii ñun montagne 5 ñun li nga xamante ne mooy wàllum social ay nit dañ koy soxla tey bu ñu ko seetee fëgg ko moo xam guddi moo xam bëccëg bu ñu ko fëggee da ciy jàpp kon dañ koy waxal loolu noonu aussi tamit euh, euh, ñun ñi nga xam xëyum ndaw yi tamit maire dama bëgg tamit mu mu mu mu gëstu gars yi nga xamante ne ñooy acteurs yi parce que tey jii boo xoolee tey benn benn benn père père élément tey affaire micro yi lay yëngu boo ko woowee tey ñii lay seeti cameraman yi tey ñi nga xamante ñooy acteur communautaire ñun ñi nga xamante ñoo nekk ci quartier ñun ñi nga xamante ne la quartier ñooy dox tey si mbedd gis tey tali karo bi fas yi nga xamante ne ñu ngi fay def ay déchets ko bale ko te kenn duñu ci nekk foofu ñun dañuy ñaan maire mu mu toog waxtaan ak ñu xool jeunes yi nga na ñun nekk ñu ngi wax dépollution de la baie de Hann comment ñu ngi koy wax mais commencé guñu mais tey gars yi ñu ngi këpp si géej gi ba léegi tey boo demee sama koñ boo duggee sama page Facebook dama koy bale gratuitement ak ay xale te aussi tamit bëgg nañ tamit yooyu noonu tamit xam nga mais tamit bàyyi xel ci acteur communautaire yi recevoir ñu waxtaan ak ñun da sa fait que yu mel noonu bu ñu mënee copte bu fekkee nañ ci am même bu fekkee sax mënuñu fay tamit mu xool ñu ci am benn jërëjëf wala benn jaaraama boo xamante ne tamit dañ koy dégg dina gën a tax ñu mën a gën a góorgóorlu. est-ce que yéen a ngi def ay ay ay ay programme ay ay formation parce que affaire bi du du du emploi auto emploi am na aussi tamit quoi. ay ay formation waaw ay formation boo xoolee xam nga ñun am nañ fi euh, collectif des associations boo xoolee li ko dalee Sirnos ba magasin. montagne am nañ fa maanaam quartier bu ne am nañ fa élément tey su ma la ubbiloon sama portable wala nga dugg sama pass bi fu ne la ñuy dem kon nag day day moo tax côté boobu noonu may wax ne comme le maire ñi nga xamante ne ñoo nekk quartier montagne sec ku si mel ni Mbaye Mbaye Sène man Maodo mooy jeune passé porte-parole jeune pêcheur ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo fi ne ay Cheikh Souaré bëri nañ fi gars yi nga xamante ne tey bu bu ñu woowoon jeunes yi rek du ñu xëcc ci salle bi waaw dañuy lancer waat wax ne gars yi ndaw ñi li woon comme li comme parce que boo xoolee yaraax maa ngi jégalu ci parole bi kii parce que yaraax dafa am euh, benn benn politique boo xam dafa doon daw ndaw ñi léegi yeewu nañ ci l'autre jour dama dem à la mairie ñu wax ma ay wax yoo xamante ne tey da ngay génn si mbedd mi toog benn jaag muy wax si yow benn affaire boo xam mel ni kër maire buntu la boo xamante ne pour nga dem fa jéggi siraat la wala pour boo xamante ne il faut nga dafa nekk loo xamante ne kër la boo xamante ne c'est pour c'est pour la yaraax waa ñoo ko moom. kër maire non mairie ba maanaam suñu kër la mairie ba nag moom la yàlla def moom ñu teg ko fa mais ñun ñëpp a ko bokk tey ku si am soxla wala jafe-jafe boo mënti am loo xamante ne concernant affaire u maire la wala affaire u jeune solo sa dàll wala man en tant que Moussa Diack wala Mbaye Sène ñu ànd ñu dem fa ñu toog moo xam nga ànd ak ñoom moo xam nga ñàkk bañ ànd ak ñoom parce que mu ngi mel ni tey le président Macky Sall tey beneen opposition bu fi bu fi dara mën a dal ñu koy ketal bu si la à la mairie ñu jàpp si tamit oui euh, dégg nga u jeunes yi ah, amuñu liggéey yéen en tant que conseil de quartier ban taxawaay ngeen ci ngeen ngeen ci am. ci l'emploi des euh, jeunes. non nañu wax ci non nañu wax ci point bi. non dédé dédé non après nañ ci délu soir. waat nañ ci délu si non nañ ci délu soir. non non non c'est moi qui qui voudrais que nga nga comprendre donc euh, dinañ ci délu soir. emploi des jeunes ensuite ñu wax ci problème insécurité bi am aussi tamit à.

te yàlla moo tax mooy wax. kuy wax fii kuy dee sa bàmmeel. Mhm. ngay dee yóbbaale. Mhm. deux. Mhm. a Niang si bopp bi ngay wax. parce que damay citer son nom. parce que si conseil de quartier la bokk. ñu ma gars yi leen dañuy bëgg def assemblée générale man ne ko Mademba man je suis responsable man assemblée bu dee am. man bokk naa si ñu koy. ñu koy ñu koy ñu koy tëgg ñu koy. ay boy ndaw ñooy taxaw fay dama jëm a manipuler. je ne l'accepte du ma ko accepté. ma toog jàpp suma ñam. d'accord képp ku ni jox na ma convocation man. D'accord, d'accord, c'est bon. C'est bon C'est bon c'est bon président président. présent. nous bëgg euh, ñu gàttal. waaw ñu problème emploi des jeunes avec insécurité.